loolu ku ci bëgg a sukkandiku waaye ñoom fan la ñu nekkoon ñi lay critiquer ci appel à candidature ça fait combien d'années que ñuy nommer ay nit. mais ñoom mosuñu ko promettre. waaye ñoom li ñuy def moo gën a garaaw dañu naan soo sa poste ñu ñu daax la. ñooñu politiser administration amuñu lu ñuy wax ñoom li ñuy def moom dañu war a noppi bu ñuy wax affaire appel à candidature dañu war a noppi. parce que pendant 12 ans déglu ma rek nga yore réew di di jënd ay nit parce que gañewuñu ay localité nga politiser lépp post yëpp nga politiser ko. ba réew mi toll fi mu toll nit ñoo ne dafay def appel à candidature pareegul nga ñëw bu ko takkal pot waxal beneen. mais Boubacar euh, xam nga <laughs> ne la waxal beneen. waxal beneen parce que yii affaire guetteur de faux <laughs> borom galgalkat yi rek la lii yëpp waxu galgal la nañ dem fii ba suba laa la wax galgal yi ngeen teg yëpp dinaa dindi yëpp. Boubacar defaa nguur ak a metti ah non boo ko waxee su nekkul ci yoon non su da ngay impopulaire non non non euh, man nag ay populaire ak impopulaire laa yemale <laughs> man moom aw ma problème boobu. mais Boubacar euh, juste pour clôturer ce ce ce chapitre là euh, dafa am souvent on l'a vu avec l'arrivée au pouvoir de Wade on on porte toujours les mêmes critiques dafa mel ni gars yi bu ñu suñu suñu suñu homme politique yi. bu ñu nekkee ci nguur proposer vision et tout bu ñu nekkee ci opposition proposer vision alternative et tout euh, dafa mel ni ñoom ci seen bopp ils sont impréparés parce que bu nekkee comme on le voit ailleurs dans l'opposition parti bi dafay ñëw avec son idéologie euh, avec sa sa sa sa doctrine euh, day ñëw day ñëw rek teg commencé doxal doctrine mu mel ni fii noo nos hommes politiques arrivent impréparés euh, au, au, pouvoir euh, en tout cas constat boobu lañ ci def parce que liñ lay proposer yëpp bu ñu nekkee ci nguur souvent c'est pas faisable bu ñu nekkee ci opposition souvent c'est pas c'est pas c'est pas faisable la réalité du pouvoir daf leen di contredire et même programme bi ñuy proposer parfois ak promesse phare yi tax nit ñi voté leen bu ñu ñëwee ils se rendent compte que mënuñu ko mënuñu ko mënuñu ko mënuñu koo def est-ce que c'est un constat boo xam ne yow constat bi partagé man ñaari constat laa def benn bi mooy que Sénégal ñi nekk opposition ñëpp ñu ci bare mos ñu nekk ci nguur donc ils connaissent l'état Sénégal amuñu problème boobu ñi nekk ci opposition ñu ci ëpp li ci leader yu ci ëpp ils ont été dans le pouvoir xam nañu comment un état fonctionne mais déglu rek. ñii ñu ñi nekk ci nguur gi tey. maintenant ñaari problème la ñu nekk ci nguur. non non non si si si ils connaissent très bien l'état ils savent comment ça c'est pas ça problème xam nga problème bi ñuy am mooy ñaari problème lañu am Sénégal dafa am ñoo xam ne ñii il développent des propositions sans ñu def le travail qu'il faut booy def proposition programme doyul da ngay bind ay trucs mais il faut nga am un programme de gouvernement won naa la ko fii après xam nga ban télé laa ko won document yëpp da nga koy travailler pendant des mois et des mois man dama bind livre programme ñu jël livre bi liggéey ko cadre def ko pendant quatre mois ñu dem inviter des experts cent experts externes ñu xool ko la réalisation tout def des projets point par point loolu du parti yëpp ñoo ko mën def parce que souvent dañuy am ay contraintes contraintes pour am les moyens de le faire pour def liggéey bi contrainte aussi politique si tu prends soo jëlee exemple pouvoir actuel bi ñi jël pouvoir fu ñu jógee. prison prison. on leur a même pas donné le temps de respirer avant prison depuis deux mille dix neuf depuis depuis deux mille euh, février euh, deux mille vingt ba léegi est-ce que noyyi nañu benn jour des répressions des morts. may ñu leen fu ñu yekkee seen nakk yéen ñëpp ngeen fekkee ko ñu tëj joxoon ngaa ñu tëj bëgg a tere élection dugal fii jàppal fii accusation sur accusation procès sur procès ñu ngi génn veyu élection yi la ñu génn prison ñëw jël nguur tu da jóge ci lëndëm kurus lumière bi ñëw lumière bi sax da lay mais loolu mu leen am patience wu effort bi ñu def sax ba ba ak li ñu li ñu li ñu enduré ngeen may leen sax ñu toog ba mën a xoolaat dossiers yi ndànk-ndànk ngeen ñoo ne tey li nga tey dina sax tey toog oui Ousmane Sonko nee na ku ku wax ba jël nguur doo ko may dara. waa xam nga premier jour nga koy takkal pot. waaye léegi takkal leen pot kenn yéen yéen takk pot yi. di di ko jóllooli rek. maye yéen yéen a takk pot yow nga jàkkaarloog yow nga yow yow nga jàkkaarloog gis nga nag gis nga nos hommes politiques là. non mais il faut qu'il soit conséquent. waaw xaaral xaaral maanaam munoo jàkkaarloog sénégalais yi léegi dama la expliquer. yow yaa ngi si Ousmane Sonko def ay non après nga ñëw naan nañ la may nañ la may. non non wala nañu comprendre dama ne la amul lu ñuy comprendre. da nga ma expliquer naka laa ko jàngatee. Ah. ma ne la ñaari jàngat mooy am. soit gars yi duñ ko def bu ñu ñëwee ba ci nguur gi duñ ko mun def soit duñ ko def pour les contraintes yi ma wax ni soit ñu def ko ba pare nag nga ñëw surplace dafa am ay niveau d'information yoo xam ne boo nekkul ci pouvoir bi doo ko am loolu may jàngal la ko boo ñëwee ci pouvoir y a des dossiers xam nga dossier secret amoo droit sax laal ko yi da nga ciy boo gisee décret mun nga nekk ci ci télévision bi di kaas naan dossier bi nii la demee ils ont fait ça kii nii lañ ko reyee nii lañ ko demee nii nga nekk ci télé de di kaas il faut clarifier ce dossier il faut une commission d'enquête et tout ça nga ñëw ci pouvoir bi ñu génn la dossier secret bi nga liir ko xam li xew da nga naan tekk parce que xam nga li xew wala nga jël beneen position loolu mooy état parce que dafa am une partie de l'information étatique qui est il y a aussi information économique bi boo dajeek ay nguur yi nga xam ne yi ñu dañu yàgg def ay luubal dañuy def ay affaires yoo xam ne économiquement dañ koy maquiller gis nga bii passé ñu ils ont dit qu'ils ont un budget mille milliards moom la ñu waxoon daaw. Mm-hmm. waa ji nee na cinq mille la. xam nga moo nax nit ba ne ko deux mille milliards supplémentaires am nga ko budget te amu ko ñoom bi ñu nee ba ci biir gis nañu ko ñu changé ko donc yooyu dafay am changement yooyu du lépp nga mën a expliquer. du surtout nga mën a communiquer l'essentiel yow li nga digg ak nit ñi mooy nga am transparence ci information yi ñu war a am et puis nga am sincérité xam nga nit ku regle boo jàngee sunu maam yi ni ñu daan yaree nit ñi dañ yar ci nga réglé soo déggee ñu naan la réglé wuloo kooku même tubaab yi boo xoolee Platon sax daf ko développé nee na nit ku réglé warul foqale warul def ay bassesse warul arogan waru lâche dañ koy jàngal nit mais nit ku régler pour nga régler il faut nga am toutes les données dossier boo dégg nga jot ko ubbi ko xool li ci nekk léegi nag problème bi mooy communication parfois pouvoir bi mën na négliger ay dossiers bañ ci communiquer mu indil ko problème parfois mën na communiquer def erreur ci communication mais da ngay xool kii est-ce que sincère na ci li muy def est-ce que nit ku réglé la pour man j'ai une présomption de bon fois ci li fi am. sur les promesses non tenues. quelle est la promesse qui n'a pas été tenue benn promesse qui n'a pas été tenue. appel à candidature non, par exemple non je t'ai dit ils mm. jamais renoncé à l'appel à candidature. Hmm. modalité def appel à candidature yi moom moo pareegul. non mais moom la ñu waneegul. on va faire appel à candidature pour yenn poste. mais ah donc poste yi gars yi ñu nommé nii. pour dañ leen définitivement. quand tu viens en conseil des ministres. tu tu tu tu tu tu nga jël nga nommé euh, RTS nga nommé AIBD e nga nommé euh, Sénélec nga nommé Port nga nommé. APIX léegi ah? ma ne nga nommé. société yi nga xam ne ñoom ñoo yor les mamelles de l'économie fii li fi des lan moo fi des ay FONGIP ay ay ay SAFRU ah, euh, ak yeneen yeneen yeneen euh, direction euh, de niveau 2 non non non foofu la ñuy def appel à candidature xam nga nag lii très bien et débat bi façon critique yi ngay dégg fii yëpp ay critique gu ku gémmiñam di nàcc la rek yow nommé nañu nit RTS nga joxe waaw déglu rek nommé nga nit RTS ah boo mettre si dispositif appel à candidature lan moo la empêché nga def appel à candidature RTS dañ la wax duñ ko def. damay la kañ la ñuy def appel à candidature. waaw loolu laa lay expliqué. dama ne la yow <laughs> est-ce que une nomination tu prends une nomination même bu fekkee du nomination intérimaire nga décider que pour le, la continuité de l'État et pour ne pas nga nga bañ a jël risque jël pouvoir bi jox ko ñoo xam ne ñii ñoo yàq réew mi damay changer ñi fi nekk. boobu gis nga yow li ngay wax ni sax gis nga waa Pastef yi sax ñoom ñoo la gën a assumer. seen posture et et et posture bi ñu am c'est compréhensible des hommes et des femmes se sont battus pour ce projet-là les gens de PASTEF disent ñiy défendre euh, le fait de n'avoir pas respecté cette promesse au nom de quoi nous on va se battre ñu ñëw bàyyi ñu fi di def appel à candidature dem jëli yeneen Sénégalais. bon loolu c'est-à-dire ñoom sax ñoo la gën a assumer. non non non yow nga bëgg leen wutal explication. non non non moi j'ai été très clair man dama bind livre. ñoom ils assument. non wax et moi j'apprécie quand les gens sont honnêtes. ma ne la yow nga ñëw y a des postes non man. ce que yow nga bëgg leen wutal explication. non man utaluma kenn explication man sama explication bopp laa yor damaa ne appel à candidature c'est limité à certains postes d'abord 36 plus des postes yi nga xam ne. compétence transversale la les grandes sociétés yi am conseil d'administration c'est le conseil d'administration qui l'organise s'il le juge nécessaire sur la base des instructions de l'État qui est actionnaire majoritaire pour man waxuma affaire appel à candidature comme un discours politique nii pour il faut que les meilleurs occupent les meilleurs postes mais ici c'est les nominations déglu rek gouverner avec les hommes et femmes qui se sont ce n'est pas projet, parce que c'est politiquement loolu laa la ne man je n'ai jamais été d'accord sur ça pas parce que tu as la politique mën a sànni xeer mën a xeex politiquement bokkul ak mën a gere pour man ce n'est pas parce que da bokk dans un projet politique xeex ki que dañ lay jox poste boo xam ne bii attanoo ko wala mënoo ko loolu je ne l'ai jamais défendu je ne le défendrai jamais même bi ma nekkee dans le truc man mosuma nomelu wala ma fexe ñu nommer koo xam ne kii amul compétence gëmuma loolu man compétence laa gëm donc loolu moom ma kenn argument képp ku foog ne séddoo la ñoom ils ont été très clairs là-dessus pas de partage de gâteau maintenant les nominations dans ces conditions transitoires avec la nécessité ci pourvoir poste yi avec tous les rapports qu'il y a pour man c'est une situation qu'il faut examiner pour replacer de façon correcte avec un schéma précis l'appel à candidature mais loolu ce n'est pas une promesse abandonné c'est une promesse qui n'a pas encore été mise en œuvre et il faut aller dans ce sens c'est mon point de vue. alors